asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu euh, mbokk jullit yi mbokk taalibe commission des finance bu Touba ca kanam mooy nuyoo di ziar di baalu àq tey baale àq euh, ziar bi nag ñu ngi koy jële ci li ñuy wax sous commission gestion des fonds bu commission des finance mi ngeen xam ne moom mooy saytu koppari Touba ci kanam ci lépp lu fiy dugg wala mu fiy génn ñu fas yéen leen a indil nag weeru mois d'août bi li nga xam ne moo fi dugg ak li fi génn ak li fi des lépp buñ ko tàmbalee ci Touba Touba ci mois d'août bi mi ngi def trente cinq millions trois cent quatre vingt cinq mille six cent trente cinq millions cent quatre vingt cinq mille six Ndakaaru ci mois d'août bi mu encaissé trois millions trois cent dix huit mille Orange Money bi nga xam ne ci la mbokku taalibe di jaarale seeni dugal te muy jeez 144 jeez 621 mu dugal 3 millions 894 mille 696 3 millions 894 mille 696 francs bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy banque crédit mutuel bu Sénégal banque boobu dafa nekk banque de proximité ñu ubbi fa ay compte ngir mbokk taalibe yi nga xam ne daf leen di jege ñu fay dugal waaye nag ñu fàttaliku ne crédit mutuel la du banque boo xam ne dafa am chèque lañ fa mën a def rek mooy virement wala transfert ci yu mel noonu waaye mënoo bind chèque joxe yenn saa yi nag dañuy am ay entrepreneur yoo xam ne ngir ñu fay leen dañ leen di fayee chèque te ñu war leen a fayee ci banque boobu yàlla di dogal nag la fa nekk ci xaalis parfois dañ koy jël transféré ko ci beneen banque transfertu mois d'août bi nga xam ne def nañ ko jëlee ko ci CMS dugal ko ci Touba ci kanam ndax boo xasee ba def retrait da nga koy wax boo defee it versement da nga koy wax kon versement bi nga xam ne def nañ ko jëlee ko ci CMS mi ngi toll ci cinq millions juróomi millions la tollool ci li nga xam ne mooy CMS Tigo Cash bi 76 268 28 28 moom mi ngi versé ci mois d'août bi 203 488 francs deux cent trois mille quatre cent quatre-vingt-huit bu ñu ñëwee ci Mbàkke soxna Aji Joor mi ngi versé un million deux cent neuf mille un million deux cent neuf mille la soxna Aji Joor versé boo xamee ne dem nañ tiib soxna Xadi Jeng mi ngi versé cinquante mille francs buñ ñu demee Bambey ci sëñ Abdou Fall mi ngi versé cent trente mille francs Bambey buñ ñëwee njaareem ci soxna Daba Mbàkke sëriñ El Hadj Fàllilu lay ak soxna Ndey Njaay ñoom ñi ngi versé trois cent cinquante mille francs bu fekkee ne ñëw nañ Kébémer ci sëriñ Góora Silla mi ngi versé cinq cent soixante mille francs su ñu ñëwee Ndar ci sëriñ Rijal Seck ak soxna Rama Fall ñi ngi versé quatre cent onze mille francs suñ demee Kaolack ci sëñ Moustapha Touré mi ngi versé cinq cent trente mille francs sëñ Moustapha Touré bu Kaolack cinq cent trente mille la versé ak waa Kaolack Kédougou sëriñ Modou Lo mi ngi versé deux cent quatre vingt mille deux cent bu ñu demee Mbour ci sëriñ Mor Souran mi ngi versé six cent dix huit mille Mbour bu fekkee ne dem nañ Ross Béthio ci àllu ñing mu ngi versé deux cent mille francs bu ñu demee Louga ci sëriñ Moustapha Mboup mi ngi versé neuf cent vingt trois mille su fekkee ne dem nañ Poroxaan ci maam Jaara Mbàkke mi ngi versé cinquante mille francs suñ demee Touba Belel ci soxna Sooda Diop mi ngi versé cinquante mille francs suñ demee Thiès ci Mbay Sàll bu Thiès mi ngi versé six cent cinquante mille francs suñ demee Casamance ci Sëriñ Modou Xari Gueye mi ngi versé deux cent vingt cinq mille su fekkee ne dem nañ Goudiry ci sëñ ba mi ngi versé trois cent cinquante mille francs su ñu demee Fass booy ci Pape Fall mi ngi versé trois cent mille francs su ñëwee ci li nga xam ne réalisation dafa amoon xaalis boo xam ne dañ leen ko joxoon ci ay matériels yoo xam ne dañ ko waroon a jënd mu jëm ci liggéeyu chantier ñuy liggéey xaalis bi nag bi nga xamee ne dem nañ ba xaalis bi des dañ koy delloosiwaat ci banque yi ñu ko delloosiwaatee ci banque mois d'août bi. mi ngi toll ci deux cent cinq mille ndax xaalis bi dafa génnoon ci mois ba nga xam ne mois précédent la woon mu newoon ci ay frais que dépense ak lu ne léegi nag li ci des ci nga xam ne mooy excédent moom dañ koy jëlaat dugalaat ko ci compte yi moo tax dañ koy dugal ci versement mu toll ci deux cent soixante mille muy waa commission réalisation ci njiital maam na Ndiaye su fekkee ne ñëw nañ ci ñi nga xam ne dañoo dañoo dem ci banque yi di rek te versement yi di li ñuy wax anonyme nga xam ne ñoom wala dañoo ñëw ci fi nga xam ne mooy Touba ci kanam wala ñu taseeg mbokku taalibe jox ko rek ne ko barkeelu loolu bu ñu ko seetee ba dajale ko nga xam ne amul wenn tur wu ca nekk mi ngi toll ci un million cinq cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante et un francs mar baamtu ko anonyme ñi nga xam ne amuñu wenn tur nangu ñoo joxe seen tur dañuy def rek na bindalu taalibe wala ñu jaar ci banque yi versé ko te joxewuñ seen tur wala ñu dem ci Orange bi dugal ko te joxewuñ seen tur wala lu mën a doon baañ ñëw ci bureau bi loolu li ñu ci am ci mois d'août bi mu ngi toll ci un million cinq cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante et un francs euh, bu ñu demee ngaay ci soxna màggat jiite mi ngi versé quatre-vingt mille francs bu ñu ñëwee jifeer ci sëñ Ousmane Ndiaye mi ngi verse cinq cent quarante mille francs bu ñu demee Kolda ci Serigne Moussa Sène mi ngi verse cent mille francs bu ñu demee Caajaay ci Serigne Fallou Mbakke mi ngi verse cinquante mille francs bu ñu demee Kujaan Kujaan ci Serigne Ibra mi ngi verse cinquante sept mille francs suñ demee Unaare ci Serigne Mbakke Lo mi ngi verse cent dix mille francs suñ demee Bukki Jaawe ci Serigne Taalakan mi ngi versé soixante dix mille francs bukki jaawe ci sëriñ taalakan soixante dix mille francs la suñ demee Fuuta ci Mamadou Fadil Dia mi ngi versé cent un mille francs bu ñu demee ci ab jaayante boo xam ne mi ngi jóge ci soxna Xadi Bàccili mi ngi doon cent mille francs soxna Xadi Bàccili jaayante bu mu def cent mille francs la Bustaan Jaw ci soxna Naar Jaw mi ngi versé quarante mille francs bopp Silla Cheikh Ahmadou bàmba Silla mi ngi versé sept cent mille francs bu ñu ñëwee Vélingara ci Serigne Mbacke Gueye mi ngi verse cent vingt mille francs kon li nga xam ne mooy biir Sénégal gi bi ñu dajalee li nga xam ne moo fi jot dugg ci mois d'août bi mi ngi toll ci cinquante huit millions six cent vingt trois mille cent quarante cinq francs léegi nag bu ñu ñëwee ci yeneen versement yi ci des nga xam ne moo jëm ci liggéeyu jumaay jii di université wu Touba bi buñ ñëwee ci versement université wu Touba bi nga xam ne mbokk yi dañuy dem rek di ko verser wala def neen ci seeni barkeelu cinquante deux mille francs moo ci dugg bu leen jógee fii nag nga xam ne jóge nañ Sénégal léegi ñu fas yéenee dem Europe dañuy gis ne Espagne sëñ Malick Dieng versé na neuf cent quatre vingt mille sept cent quatre vingt France sëñ Mouride Ndaw versé un million deux cent cinquante quatre mille quatre cent quatre vingt quinze francs suñ demee itali coordination ba nga xam ne moo fa nekk jiite Italie versé nañ quatre million trente huit mille deux cent huit francs quatre million trente huit mille deux cent huit francs la itali versé suñ demee Allemagne sëñ Abdou fay ak waa daayira Bayern bi yëpp ñoom versé nañ. six cent dix neuf mille deux cent vingt trois francs totalu Europe li nga xam ne moom moo fa génn ci versement mi ngi toll ci six millions huit cent quatre vingt mille sept cent douze francs six millions huit cent quatre vingt mille sept cent douze francs bu ñu demee nga xam ne zone Amérique nga xam ne mooy États-Unis Canada ak Amérique latine ñoom ñu ñëw ci Argentine bi. dañuy fekk ne ñoom versé nañ ci trou sëñ Papa Soda Sey cent soixante seize mille sept cent francs Argentine sëñ Papa Soda Sey versé na cent soixante seize mille sept cent francs bu ñëwee ci États-Unis Serigne Souhaïbou Seck versé na deux millions cent soixante onze mille francs totalu Amérique ci ñi nga xam ne ñoo jot a ci mois d'août bi mi ngi toll ci deux millions trois cent quarante sept mille 700 francs ñu ñëw ci zone Afrique ñu tàmbalee ko ca Libye Mamadou Bakhoum versé na 160 000 francs Guinée Bissau Serigne Modou Atta Seck versé na 676 000 francs 500 676 500 francs moom la versé Côte d'Ivoire sëñ Mor Faasa versé na 1 million 175 000 francs Guinée équatoriale sëñ Mor Lo versé na. six cent mille francs Mali Alioune Waaj versé na sept cent soixante seize mille trois cent cinquante francs bu ñu ñëwee ci Mauritanie sëñ Ibrahima Sarr versé na un million cinquante cinq mille francs suñu boolee li nga xam ne moom la Afrique gépp versé mi ngi toll ci quatre millions quatre cent mille huit cinquante francs kon Afrique seen total. mi ngi toll ci quatre million quatre cent quarante deux mille huit cent cinquante francs su fekkee ne dañu seet li nga xam ne moom la versé yëpp mi ngi toll ci soixante douze millions trois cent soixante deux mille quatre cent sept francs quatre cent quatre quatre cent sept francs soixante douze millions trois cent soixante deux mille quatre cent francs mooy versement ci mois d'août ñu ñëw nag ci li nga xam ne mooy moo génn ci weer yi ñu nekk muy mois d'août bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy chantier boobareel ñun ñëpp xam nañ ne boobareel dañ faa am poste de santé boo xam ne ña ngi koy tabax fi ñu toll sax léegi mu sori insha allahu rabbi ci mois d'août bi ñu ngi ci génne million 4 cent 703 mille francs bu fekkee ne jóge nañ ci boobareel ñu dem ci chantier bi nga xam ne mooy chantier wu Kër Gol moom it ab poste de santé bu ñu fay tabax ñi nga fa décaissé maanaam la nga fa def dépensé ko fi mu ngi toll ci neuf million cinq cent six mille deux cent francs bu fekkee ne dañoo dem ci université bi nga xam ne moom la ñu sëriñ Mountakha di liggéeyloo te mu nekk ci biir université bi te ñu am fa benn chantier te muy benn R3 R plus R plus 3 maanaam benn benn benn benn ñetti étage ak de chaussée ñu koy tabax foofa ñi nga fa def. ci mois d'août bi un million dix-neuf mille sept cent francs loolu lañ fa def su fekkee ne dañu ñëw ci poste de santé bi nga xam ne moo nekk ci Daaru Xadim ci mois d'août bi ñu ngi fa versé cinq millions cent soixante-sept mille sept cent vingt et francs waa commission communication nga xam ne dañuy def ay frais ngir lépp loo xam ne day jàllale liggéey bi ci média bu mu mën a doon mois d'août bi ñu ngi dépensé cent quatre vingt quinze mille francs suñu ñëwee ci làmp yi nga xam ne moom la ñu def ci màggal gi ñu dellu si ci taxaw ci tuuti dañu ci màggal gi waa commission bi nga xam ne ñoom ñu yoree liggéeyu màggal gi danoo dajewoon ak ñun ak préfet ak euh, waa Touba ci kanam ak waa senelek ak ñëpp ñoo xam ne dañoo nekk ci secteur boobu ñu ko doon wooye réunion sectorielle ñu joxoon ñi ci ab liggéey boo xam ne dañu bëggoon ñu defara dolli làmpi dëkk bi ci kaw loolu nag ñu dépensé ci soixante quinze million soixante quinze millions yooyu nga xam ne dépensé nañ ko ci làmp yi nii la demee quarante neuf millions neuf cent quatre vingt mille yi dafay làmp yoo xam ne moom la ñuy wooyee làmp éclairage publique nga xam ne mooy làmp yi nekk ci mbedd mi ñu jënd ci lu war a tolloog mille neuf cent làmp ñu jënd leen Chine yeneen yi ci des nekk une valeur de euh, vingt cinq millions deux cent mille lool it muy ay làmp yoo xam ne dañ ko jënd ngir mbokk yi ku ci bëgg a jaayante nga jaayante ko def ko ci sa buntu kër ngir leeral metti Tuubaa yi ndax xëy na fépp làmp amu fa waaye dañ doon ñaan taalibe bu ne sa buntu kër nga def fa benn làmp boo xam ne day leeral làmp yooyu it ay làmp la yoo xam ne ay làmp yi trente watt la ay quatre mille lumines la ay lamp la yoo xam ne it ay IP lañ lamp yu leer lañ comme lamp mbedd yi moom it mi ngi ci Touba ca kanam képp koo xam ne soxla nga ko rek boo dikkee boo yoree ñaari junni dinañ la ci jox benn nga dem monte ko ci sa buntu kër bu ñu jógee ci li nga xam ne mooy lampi màggal gi dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne mooy Lansar poste de santé wu Lansar bi nga xam ne moom noppi woon nañ ko waaye nag mu amoon ay liggéey yu sew sewaan yu ci delloo ko waatoon ci mois d'août bi toll ci un million six cent dix mille francs loolu lañu ñu ci mois d'août bi ci Lansar beneen bi nga xam ne ci la ñuy ñëw mooy commission bi ñuy wooyee environnement mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yore garab yeeg li ñuy def ci garab yi ak yooyu yëpp foofu ci mois d'août bi ñi ngi ci versé ñi ngi ci dépensé trois millions deux cent soixante dix huit mille francs euh, ba tey ñu dellu siwaat ci li nga xam ne moom la ñuy dikkaat ci màggal gi mooy li ma doon wax rek léegi ne dafa amoon ay réunion sectorielles yu amoon benn bi ci électricité bi la woon waaye benn bi mi ngi jëmoon ci ndoxum Touba ndax ñun ñëpp xamoon nañ ne ay jamono forage yu bari dañoo amoon problème problème yooyu ñu amoon nag bi ñu waxtaanee ak OFOR waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañ bokkaloon ci réunion bi ñu waxoon ne dafa am ñaari forage yoo xam ne il fallait ñu changer seeni pompe benn bi Bagdad la woon benn bi ci des nekk fi nga xam ne moom la ñuy wax Rahmatul Ahad nekk ci biir université bi ñu war a jënd pompe yi ngir remplacer ko li nga xam ne mooy pompe yi yàqu ngir dëkk bi am ndox ci màggal gi ñaari pompe yooyu mi ñu coûté quinze millions vingt mille francs ñaari pompe yooyu loolu la ñu coûté euh, bu ñu ñëwee ci li nga xam ne nag mooy mbokk taalibe yi nga xam ne dañoo nekk fii ci Touba ci kanam di fi liggéeyee te nekk fi ak yeneen dépense yi nga xam ne moo fi am charge fixe yeeg yooyu mi ngi toll ci deux millions quatre cent trente deux mille cinq cent deux millions quatre cent trente mille cinq cent mooy salaire yi mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ci kanam ak lépp loo xam dañ koy fay muy électricité ak yeneen yi muy àndal yépp loolu mi ngi toll ci deux millions quatre cent trente deux mille cinq cent bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy camion bi ñuy wooyee camion wu let ndax xam ngeen ne dañu jëndoon benn camion boo xam ne moom la ñuy wax bilbo truck moom lu muy def dafa yor ay écran yoo xam ne ci la ñuy jaaralale suñu communication di wër dëkk bi ak yeneen i dëkk mu am nag ay frais yu sew sewaan yoo xam ne dañ ko cee defoon mu toll ci un million soixante huit mille francs li nga xam ne mooy keesu Touba ci kanam bi nga xam ne moo fi nekk euh, te mu jëmoon ci liggéey yi ak yeneen liggéey yi nga xam ne moo fi amoon jëm ci jàkka yi Serigne Saliou ji nga xam ne dafa inondé woon ba fees te nekk ca fa ñuy wooyee ndaamaatu euh, ñu waroon faa def ay camion suuf ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne yëpp dañ koy def muy transport ñi nga xam ne dañuy ñëw parfois bu ñu dikkee indi ay facture ak yeneen te yàlla dogal ay reçu yi nga xam ne moom lañ jaay te bu ñuy dikk dañuy soxla paas bu leen delloo ñu def fi benn kees ngir yooyu loolu ci mois du mois d'août bi mi ngi toll ci deux millions cent deux mille sept cent cinquante neuf francs deux millions cent deux mille sept cent cinquante neuf francs ci la loolu toll léegi loolu bu ñu noppee waxoon naa leen ca biir encaissement ya ne leen CMS muy crédit mutuel dañ faa jëloon cinq millions dugal ko ci beneen banque bu ñuy wooyee Atlantique ngir mën a fay ay entrepreneur ndax waxoon naa leen na leen CMS dafa am dafa am euh, dafa amul cheque te entrepreneur yi ñu ci bari ay chèque lañ leen di fayee te it comme CMS dafa nekk banque de proximité ma leeralaat ko ndax mën nañu wax kon ginnaaw loolu am na lu tax ñu fay ubbi compte mais CMS dafa nekk banque de proximité te banque de proximité boobu mu nekk dafa jege nit ñi de telle sorte que dañ fay dem di fa defi versement loolu moo tax ñu ubbi fa compte ngir ñu fay defi versement mais bu ñu tollee ci fay nag dañuy def virement jëlee ko CMS mu yóbbul ñu ko ci banque weer wu bii nag lim ñu verseel ci UBA da ngeen baal ma ndax laa wax UBA mi ngi nekk. cinq millions de francs décaissement boobu it moo génnaat fii kon pour compenser lale da ngay jële fii dugal fee leen lu ne dañ ko war a wax moo tax ñu indi cinq millions yooyu ñu defal leen li ngeen xam ne mooy euh, ab tënk ci mois d'août bi tënk bi mooy mois d'août ñu ngi encaissé soixante douze millions trois cent soixante deux mille quatre cent sept francs ñi ngi décaissé ci mois d'août bi cent vingt six millions cinq cent quatre vingt deux mille huit cent quatre vingt francs ci mois bi nga xam ne moom mooy mois d'août li nga xam ne moom moo war a des ci kees gi te muy négatif nga xam ne bu ñu seetee li ñu décaissé décaissé moo ëpp li ñu encaissé différence bi day daal di nekk cinquante quatre million deux cent vingt mille quatre cent soixante treize fekk si na nag li nga xam ne moom moo newoon ci mois de juillet ci banque bi ndax boobu ci banque bi ci mois de juillet bi mu ñuy jeex ci mois de juillet ñu ngi fa bàyyi woon cinq cent vingt million millions quatre cent soixante et mille trois cent quatre vingt loolu lañ fa bàyyi woon léegi nag mois d'août bi mu dikkee nekk loo xam ne dafa wàññeeku ndax dafa négatif li fiy des kon ci mois d'août day toll ci quatre cent soixante neuf millions deux cent quarante et mille six cent cinq six cent soixante six francs moo leeralaat li nga xam ne moo fi nekk ci banque yi quatre cent soixante neuf millions deux cent quarante mille six cent soixante six francs mooy li nga xam ne moo des ci banque yi ci mois d'août mbokk yi Touba ci kanam ci commission wu des finances ñi ngi ciy jaare di sant mbokk yépp góor ak jigéen mag ak ndaw sunu kilifa yi sunu sang si bàyyiwuñu kenn diaspora ak waa national ñoo ngi leen di sant leen gërëm bu dul woon ak yéen Touba ci kanam du man li mu man kon ñoo ngi leen di ñaax di leen woowaat yéen ngeen dellu si ci liggéey bi gën cee jàpp ndax bu ngeen ci jàppee fii ñu bëgg a yóbbu liggéey bi sëñ Tuubaa bi nañ ko fa yóbbu asalaamaaleykum wa rahmatullah